ay bismillah bismillah bismillah asalaamaaleykum wa rahmatullah wa barakaatu mbokk yi mbokk yi man la marit fii ci Saveurs Planétaires macha allah fas yéene dellusiwaat ak yéen tey ji ci kàttanu yàlla niñ ko baaxoo di defee di leen nuyu yéen ñëpp te di leen wàcc seen wàccuwaay macha allah macha allah di leen ñaanal yàlla yu àddina ak àllaaxira mbokk di leen ziyaaraat ci weeru euh, jullit yi bu bees bi ñun daanaka <laughs> tey mooy suñu premier janvier <laughs> jour de l'an macha allah di leen ci ñaanal yàlla ay xewal yu baree bari mbokk gis nga li ngeen di gis nii poisson muusal la la marmite jën bi moom la ñu ñëw may ko le petit muusal à la marmite boole kook suñu salaat composée mbaa salaat ordinaire waaw boo ci dóor rek day dem ak moom gis nga wisal nañ leen ci léegi nii suñu persi seen ngeen ruq bee may mun a nees gi ma nga nee di no nongi moom it ñu persi waale ko foofa daal di xalagu waaw xaar ñu njoosaan ni ndànk ci vinaigrette soble bi ñu dóore woon nii kañ très bien mbokk yi topp leen ma incha allah ñu jublu ci njafaan mi aywa aywa très bien très bien <laughs> macha allah wala quwwata illa billah mbokk yi bon gis ngeen ko ni suñu yóbbu yaaba yaa ngi nii suñu tëllu coof lañu yor fii fas yéene rek dégg nga maam euh, maye benn poisson muusal à la marmite bu gaaw a gaaw a gaaw a gaaw nee naa leen mère Diop yi rek la <laughs> yi rek la mère Diop daan dóor waaw très bien donc gis ngeen ni ñu ngi fi ak suñu benn dànn de poisson muy suñu tëllu coof rondel nañ suñu tomate fraîche dangay jël tomate bu fraîche euh, dëgër ma nga ne rondel suñu soble rondel ñoom limon teg ci ruq ba <laughs> ki kaani tëmbal la bu verte bi dama koy ubbi rek teg ko ci noonu balaa mu yàq gémmiñ yi kii persil la gis ngeen ko noonu

poivre moom poobar a ngi nii donc gis ngeen kii ni sama pëndoxu njafaan bi macha allah mi ngi ci yoon wi donc laaj la ak ay soble yu ñu wawal ak laaj yu ñu wawal ay persil yu ñu wawal sànni ci tuuti xorom ak poobar rigirigisé ko ba muy xoole benn place rigirigisé kooko tudd ñu riij ko voilà donc ñu ngi fi ak suñu huile d'olive léegi lii nii suñu salaat ordinaire bi rek lañ koy xel di booleel comme d'habitude donc ñu ngi fekk suñu betterave buñ baxal ba pare suñu pomme de terre ak patate baa ngi ci ron ndab lale nañ ko ba ne neem dañu ñëw dagg ko carotte baa nga ne <laughs> ak suñu nen bu ñu baxal la ngi la ñu daal di tegee na la ci ruq bi incha allah donc mbokk yi balaa ñu dem fenn di leen wax rek ni que euh, tey jii ci kàttanu yàlla euh, suñu mbokk yële nekk fële na la ca Canada euh, Montréal Euh, quartier ville euh, nga xamante ne ñoom ñooy dégg nga maam jaay jën yu neex yu fresh yooyu euh, muy monsieur et madam Fall di leen wax ne que tey ñoo ñu jàppale ci mbir mi gis ngeen seen jën yi ñoom dañ la ko yónnee Amérique Canada ba Amérique fii am nañ moyen bu ñu koy defee ba mu congelé ba wow koŋ waaw daal di yegg seeg jàmm dara du ci yàqu tey nii wan naa leen tëll bi incha allah subaam jàmm ngeen gis njaane ya mu fa jënd may leen ko benn pend mbay bu xonq ba yegg ci jor bu ko defee foofu ne tuy donc ñoom. une euh, adresse de nek 1150 1150 1150 rue Decari. voilà rue Decari D E C A R I E Saint-Laurent Mangok Saint-Laurent la de donc ce numéro de téléphone fay que 438 498 54. 48 donc mbokk yi te ñom ubbi nañ yenen yu bees euh, Québec am nañ fa Montréal ak euh, yenen euh, ruq-ruqaan yu sew yi nek fofu bo len wowe rek incha ñom dinañ len wax yeen fi ngeen nekkee ak yeen fofu ñoo ñu nek Canada sur place naka ngeen mëna def ba am ci jën yu fresh yi nga xamné directement Sénégal lay joggé très bien donc rapidement euh, pour la version française ce soir je vous propose euh, euh, du poisson là on a une darne de poisson c'est du mérou blanc voilà. Et il y a de la tomate fraîche que j'ai coupée en rondelles, de l'oignon, en rondelles aussi, citron. Et ça, c'est du piment fort et c'est le vert. Donc, euh, je vais juste euh, mettre ça à côté. Voilà. Et là, on a du persil, une botte de persil haché. Chop, chop, chop. Ça, c'est du jus de citron. Voilà. Et là, on a du fenouil. Voilà les grains de fenouil. Ouais. Et on aura besoin de l'ail, vous voyez, du sel, poivre. Et ça, euh, ce sont des épices que j'ai mélangé Les petits yubiaba c'est juste euh, de l'ail, euh, des persils, du poivre. Voilà, et tout, tout. On, pour la salade, pour notre salade composée, on a des betteraves que j'ai déjà préparées et puis découpées en cubes. Et là, on a des pommes de terre et de la patate douce en dessous et des carottes si vous avez des haricots verts vous pouvez Ça euh, euh, leen ci rek légumes yu leen neex waaw lakk gang may sonal daf may fatt damay can euh, këf voilà et ça ce sont les nems voilà pour notre salade composée pour accompagner euh, notre poisson donc voilà donc euh, la salade euh, composée c'est pour accompagner notre poisson à la marmite kañ poisson à la marmite là tout des gi foofoo ngay toj bien allah donc mbokk yi ñu ñëw les nag suñu marinade bi nga xamante ne incha allah moom lañ fas yéenee mariner euh, suñu jën bi léegi euh, c'est du jus de citron voilà donc moi ça m'a sama njafaanu herbe yi ma mélangé noonu ak euh, ki j'avais oublié de vous montrer il faut ajouter juste un peu de moutarde voilà mbokk yi donc mi moutarde bi ñu may ko ñaari kudd yu ndaw rek mu gën a rakkaat ji ku mu neexit mën nga ko ci bañ a def man sama yaay daan ko ci def voilà gis ngeen nii ñu ne ko ci réel laaj bi ñu ne ko ci tuy poobar bi réel ci biir xorom si mu bañ a bari voilà c'est bon léegi gis ngeen yooyu moom la ñuy boole ak suñu tuuti huile d'olive ñoo ko gisandoo gis ngeen ko yii lañuy boole jël persil bi ne ko ci teel may ko jox a mélangé joxase Milonze, ba muy xolé ben place voilà Doli ci huile d'olive bi très bien merci beaucoup néna la ki rek nga défar sa muy mëna ness légui nak suko ko défé ñu ñëw ndank voilà indi ni suñu pool bi nga xamné fi lañ ko fassiyene togué non stick la du collé mais dama jittal ni sop lay ndank ci souf pour bu net mané ko ci suko gis ngeen ko ni ñu dal di jël ndank suñu teul wi gis ngeen ko ni bu ñu fàtte ne yuubu yaaba yi moom kefin la ci gis ngeen ko nii am suñu tëlli coox bu biyee merci beaucoup daal di ko teg nii ndànk waaw kañ gis ngeen ko ni ñu bënnaale ko ko ko ciy roofaale sax nag mu gën a cukkuru wut ngeen ko nii waaw góore waay léegi nag su ko defee ñu ni njoo seet suñu ñoble gis ngeen ko daal di sànni kañ très bien merci beaucoup gis ngeen ko noonu daldi na nañu rondel ba mu jekk ñëw ci tomaat bi gis ngeen ko nii teg ko nii ndànk rek xar ñu superposer ko voilà très bien merci beaucoup gis ngeen ko noonu su ko defee ñu njoosaat nii ci suñu yubu yaaba gi gis ngeen ko très bien merci ko kañ gis ngeen ko noonu ñëw ndànk may leen nii el limon waaw kii la tubaab bi woowee el limon voilà comme ça léegi su ko defee kii moom comme dafa saf te ñàkk teggin nga ma ubbi ko nii rek ubbi rek sànni hi nga ma génne lii voilà dindi naa lii moom moo koy waxal très bien su ko defee nag gis ngeen ko nii moom la ñuy ñëw teg ko ci safara bi def ko feu doux voilà feu bu ndaw a ndawa a ndaw a ndaw bàyyi ko fa ñeexu soble beek ndoxu tomaat beek ndoxu jën beek lépp diwul lay ñaay bu ko defee foofa toj merci beaucoup ay mu ngoog mbokk yi gis ngeen ko nii léegi nag teg nañ suñu pool ci feu bi dañ koy def feu bu ndaw a ndaw a ndaw voilà léegi nii xaar dama koy def feu bu moyen noonu mu tiit tëb tëbal noonu rek ma def ko feu bu ndaw a ndaw a ndaw bu sës waa su ko defee nag ñu fermer ko hermétiquement gis ngeen ko nii mangoog en naa ñu jublu fële ci suñu salaat composé bi. très bien alors bien macha allah mbokk yi léegi nag ñu defar suñu vinaigrette bi gis ngeen lii soble bi ma confit woon la. donc soble bi moom laa confit woon def ko ci vinaigre blanc ak cidre de pomme sànni ci ay clou de girofle maanaam xorom polle bi mangoog ak tuuti diwlin ak tuuti xorom ak tuuti suukar lii nii moom laay defee sama vinaigrette tey bi macha allah gis ngeen ko nii. sànni ci waale ci ay poobaru doom léegi su ko defee gis nga ni nega ma sànni ci nii rek desitu persil bi voilà très bien gis ngeen ko noonu bu ko defee nag ñu ñëw fi ci moutarde bi dijon bi voilà ñaari kudd doy na mayaat ko ci huile d'olive bi très bien dompa tuuti ci xorom si ndax bu ñu fàtte suñu vinaigrette bi lu amoon xorom ba pare la gis ngeen ko nii léegi nag ñu poivré ko poobar ko très bien voilà gis ngeen ko noonu ay mbokk yi très bien macha allah gis ngeen ni suñu muusal bi mi ngi nii di kifin par ndànk-ndànk ma ko ci mi ngi nii di kifin par gis ngeen ko gis ngeen ko ni ñor na bi mu ngeer wow Euh, nga xamante ne que du kii du du yàgg voilà du yàgg ci ci ci kii bi ci taal bi ma nga xaar ma yokk tuuti rek mu pëx pëxi voilà. aywa ma ngoog macha allah gis ngeen ni suñu légumes yi pomme de terre beeg carotte beeg patate douce bi ak nen bi mi ngi ni may baxal pour suñu salade composée bi très bien doxantu ba fee baxal fa suñu betterave <laughs> ngay toj dama ko ber dama bañ mu coloreel ma yëf yi merci beaucoup. ay ma ngoog bien mbokk yi gis ngeen ni suñu salaat composée bi. gis ngeen ko ni suñu vinaigrette bi pare na nga ñu wis ko ci nii jël ci yu yaaba yi laal ci mu macérer en attendant les événements pomme de terre la ak patate douce ak carotte walla gis nga betterave bi mi ngi nii moom xanaa ma tegee ko nii rek ndax moom tem <laughs> yëbb ci kaw affaire yi moom indi couleur boppam voilà ba ñu tege ko noonu à côté moom it ñamal ko ci yubu yaabay mu macéré voilà très bien donc ñu ñëw suñu muusal bi pare na daal di defar suñu benn mise en place bu gaaw indi may mun a nees bi teg ci wet bi foofa daal di toj. merci beaucoup très bien très bien macha allah walla wala quwwata bi billah mbokk yi gis ngeen ko nii. gis ngeen ni suñu poisson bi gis ngeen ni yor ndànk loxo bi ci suuf ñëw ne ko rel ni ci digg assiette bi gis ngeen ko nii boo leen jiitalee soble bi ci suuf macha allah macha allah. su ko defee ñu doxantu ndànk ci suñu salaat si dégg nga maam ñëw may ko pëti mbiccër mbicc noonu su ko defee foofa daal di toj merci beaucoup très bien aywa très bien très bien macha allah wala quwwata illa billah mbokk yi ñoo ko gisandoo suñu poisson muusal a ngi nii muusal à la marmite <laughs> waaw mën na ko ci suñu poisson muusal à la marmite da ngii ñuy seen dégg nga maam ci wëndeelu mbaay mbaay bi denga mam di ndel ndel xaar ñu ray ci ni ci ñeexu huile d'olive bi fi ni waaw kagn xaar li ni ci yu biya bay xam nga nak ñun comme dañ koy mburok di sos soos <laughs> yu biya yaaba yep ne tel très bien mbokk li lañ leen indiloon tay ji fi ci saveur planétaire machallah gis ngeen ko ni muy suñu euh, poisson muusal waaw ala marmite yoron fi suñu teul ciof rek ne ko ci rel ñu ni déet na waay ñu daal di ko may suñu benn salaat ordinaire à la waa Diop waaw boole suñuy légumes ak yooyu rek composé ko waaw salade composé may ko suñu may mun a nees bu ñu acheté suñu persil nii ci ruq bi xal suñuy neen bàyyi ñoom yóbbu yaaba ni ñuy gundus gundusi ak a saf te neex très bien mbokk yi naan leen bu leen ma fàttee may la baaraamu kaw sela la wu cax mu yéeg ci kaw et baaraamu suuf sela la fente su ko defee foofu daal di toj aywa nee leen ma bon appétit merci beaucoup aywa aywa aywa macha allah テレビ